waaw sëñ Babacar ñu lay nuyu bu baax dañoo gis ni euh, da joxe ay cuuraay. Hmm. ñu bëggoon laaj ba xam cuuraay yi ba njëriñ la am. salaam di leen fay di nuyu ak yéen ci laaj bi am solo bi mu ciy tontu hmm. waa cuuraay yi moom boo gisee ñuy wax sëñ Babacar borom cuuraay yi. Hmm. ñu xam ci cuuraay. ñu yàgg joxe te ñi koy jox ñëpp di ci am ay résultats yu am solo. mu nekk cuuraay yoo xam ne. Euh, da ngay gis ñoo xam ne dañuy am lu mel ni. Mm-hmm. faru rab. bu dee ci jigéen la wala ci góor. Mm-hmm. bu dee ci jigéen la dina la jox ngay am naqar xol. Mm-hmm. dinay waral tam ngoro boo am mu yàqu. dinay waral tam ngay yéex a sëy. dina la tëj tam ci wàllu wërsëg sax ba nga xam ne. Euh, foo liggéeyee ñaari fan arrêté. bu dee ci góor la tam mën na waral nit ki yéex a sëy. mën na waral tam muy foye boppam di ko xirtal ci muy def ay masturbation mm. ak yu mel noonu bu ko defee cuuraay bi mm. dafay dindal lu mel noonu mm. képp koo xam ne nii yaa ngi bëgg am boroom kër moo xam góor la bu dee jigéen nga bëgg am soxna te mu jafe la bu dee bu fekkee am na cuuraay bu jëfandikoo loolu mën na ko yomb su fekkee tam ñi nga xam ne dañu feebar nga xam ne si ñoom dañuy feebar bu ñu demee hôpital yu ñu gis lan la parfois mu def leen métti bopp wala mu def leen insomnie wala sax feebar boo xam ne nit ki xam na ne moom feebar na hmm. fu cinq heures fu euh, jant fu euh, jant xasee soo hmm. maanaam timis jotee rek mu mel lu xaw a grippe ko defee mel ni ku am grippe guddi gi yëpp tu ko nalaw hmm. bu ko defee bu amee cuuraay bu ko suuru daf koy dindi waaw ndax loolu mbiru seytaan dina koy def waaw seytaan dina ko def ndax seytaan dina waral nit ki su feebaree fu ne lay faju fu mu dem du ñu gis lu ko dal wala sax mun naa feeñ si benn feebar feebar nga faj ko faj faj faj mu të comprendre nga dafay cuuraay bu ko amee loolu dafa koy dindi bu dee même ñi nga xam ne tam dañu tëju mhm. waa dañu umu cuuraay bi day dindi umute mhm. comme dafa umu ba suy jaay du am njarate mhm. wala liggéey jafe na ko wala buntu wërsëgam tëju nga defee cuuraay bi baax na ci loolu bu dee ñi nga xam ne tam cat daf leen jàpp ah. nga xam ne dañuy gis ne dañuy gën a deltu mm-hmm. yaa ngi jaay dem ba amatoo sa marchandise boo jaayee mm-hmm. wala dem nga ba njaay mi doxatul mm-hmm. loo dugg rek mu taxaw loo dugg mu taxaw wala sa alal di yàqu wala am na sax ñoo xam seen alal day day yàqu maanaam seen oto yàqu dem ba njaay mi doxatul bu dee société la société bi nekk commencé nekk en fait fekk cat dina ko def Euh, wala boo demoon sax mën nga nekkoon da ngay dem Chine mm. Dubaï fu nekk mm. dem ba heure boo demee voyage boo ñëwee yaay mujjee jaay mm. wala balaa ngaa ñëw il faut am gàllankoor bagage yi nit ñi génne commencé jaay yow doo mën a génne wala sooy jaay chaque fois sa marchandise am euh, soit défaut de fabrication wala daal foo jaar am lu ci dog-dog bu ci am fekk loolu cat dina koy waral di def nga defee cuuraay bi bu ko amee. boo jëfandikoo rek loolu daf hmm. koy daf koy hmm. euh, cuuraay bi ku am ni koy jëfandikoo hmm. moom da koy euh, fexe euh, di sangoo sunguf bi juróom-ñaari fan. bu defee bu koy commencé da ciy comp teg ko si làmmiñam naan ndox la ci des mu xooj ko sangu si juróom-ñaari fan yu tegaloo. sunguf bi cuuraay bi tam da koy suuroo neuf jour ko defee noonu la ko nit ki di jëlee. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw heure waaw heure mu koy jël moom. cuuraay bi kenn ko jël bëccëg guddi nga koy jël. guddi guddi waaw guddi ba guddi ngay jël cuuraay bi. dama la waaw parce que euh, su fekkee nit koo xam ne dafa lëndëm. wala dafa dañ koy tooñ. mu nekk borom bët wala borom làmmiñ bu aay. soo suuroo cuuraay boo ko jubee mën naa maanaam. def réaction waaw boobaa mën na jëfur moo tax doo ko jëfandikoo fekk yaa ngi dem ci nit ñi parce que nit ñi am na ci nit ñoo xam ne on set am ñoo xam ne ndax lii dafay dàq seytaane dafay dàq tam cat koo xam ne dañ ko làmmiñu wala koo xam ne dañ ko catu yooyu yëpp cuuraay bi daf koy dindi bu dee koo xam ne dañ koy tooñ nga suuroo ko bu xet gu duggee mën na jëfuur loolu moo tax ñu kenn du ko suuroo guddi kenn du ko suuroo bëccëg guddi ba guddi fekk yow pare nga waratoo génn mhm. parce que boo ko suuroo génn rek mën am jafe euh, mhm. allah am na <laughs> mhm. waa di wax euh, waaleykum salaam di ñaan yàlla def jàmm senegal gàmm gi ñu jëm tam yàlla yóbbu ci jàmm. ñu gàmm ko ci jàmm. ñëpp ñibbi soir ak seen sago. waaleykum salaam